Je vous remercie et je voudrais rendre grâce à Dieu de l'opportunité qu'il m'accorde cette année encore de venir à Touba auprès du Khalif général des Mourites et de l'ensemble des fidèles de la communauté mourite pour célébrer le grand Magal de Touba et répondre à l'appel de Khadim Rasoul adressé à tous les croyants pour venir s'associer à lui dans la louange qu'il adresse à son Seigneur pour les innombrables bienfaits dont il l'a gratifié. Donc je suis venu, comme tous les ans, participer à cette grande célébration du Magal de Touba. Et je voudrais adresser mes voeux à l'ensemble de la communauté et à l'ensemble des croyants du Sénégal et de la diaspora à l'occasion de cette célébration. Monsieur que, euh, que répondez-vous à l'appel de Diop Vous voudrez vraiment une unification de la famille libérale Oui, je crois que le Magal de Touba nous suffit amplement comme sujet aujourd'hui. Euh, je ne voudrais pas aborder d'autres questions par rapport à l'actualité j'aurai d'autres occasions. Par rapport à votre absence du pays, depuis un certain temps, il y avait beaucoup de supputations oui, non, je n'étais pas absent du pays. Comme je l'ai dit, naturellement, j'ai des obligations au plan international qui me conduisent parfois à voyager, euh, mais je suis totalement absorbé par une euh, grande réflexion sur les questions de développement du Sénégal sa prospérité de sa sécurité. maa ngi leen di sant di leen gërëm ginnaaw bu ma sante yàlla julli ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, li ma indi Touba tey mooy li ma fi daan indi jamono ju nekk mooy wuyu si woote sëriñ Touba Xaadimu Rasul bi mu woo jullit yëpp pour ñu santle ko boroomam. ci xéewal yu bari yi mu ko defal ci mission bi nga xam ni moom la am di ñëw ci xalif général des Mourides di ko indil suñu ziyaar di ko tal suñu loxo pour mu ñaanal Sénégal yàlla def fi jàmm yokk xéewal ñu ko dëkkee nawet yi di barkeel liggéey yi xale yi am ko wérgu yaram gi jëm kanam loolu mooy tànk yi nga xam ni moom a indi fii ci Touba xam naa ni bari ngeen ay question politique ay question d'actualité comme ni ma ko seen mbokk muy posé mais dinañu am yeneen jamono yu ñu ci yu mën a yu ñu ci mën a waxtaanee jërëjëf. Tuubaa ngi woote bésu màggal gawaaju ko man na waaj te ñëw ndax sëriñ Tuubaa ko xër la ci gan Tuubaa ngi woote bésu màggal gawaaju ko man na waaj te ñëw ndax sëriñ tuubaa ku la ci gan góor gi géen na nga kii ndaw ñépp nag lan woo màggal si leen màggal tuubaa ko miin góor gi géen na kii ndaw ñépp lañu woo màggal si leen màggalu tuubaa ko miin